dañuy dellu si rek ci ñeenteelu xaaj bi nga xamante ni bii ca la ñu toll woon ci nettali bi nu yaxantukatu tubaab boobu ci téeréem bi mu tuddee réewi wolof muy Joseph euh, Sorbière au pays des wolof mu du nettali mbirum dammel sàmbalaw bi xureeja mbooj ñëwoon na ak noonu ba ba mu fekkee Demba War Sàll ca teenu kel ba ak la fa waxtaanee ba dem ba war tàggoog moom ni ko yàlla na nu yàlla wanale waat ci àdduna kon dañuy wéyal rek ci ñeenteelu xaaj bi quatrième épisode mu ni nag moom Sorbière waxtaan wii ma séq ak Demba War Sall ba ñu ca tegee weer dama dem Tiwaawoon lan laa doon wuti Tiwaawoon dama demoon ngir régler ji maanaam ngir wàññi ngir xayma ji ñu jox inventaire benn boutique boo xamante ni benn sunu benn jaaykat benn traitant moo ko yoroon foofu ci Tiwaawoon mu ni nag Tiwaawoon jabo bu nga xamante ni ja mooy jabu xumb la ndax jëgg yi fay daje ci traite bi di jënd ak a jaay waaye mu ni nag ju ma egsee Tiwaawoon mel na ni ak jaaxle dal na yaxantukat yi waa Tiwaawoon mu ni jaaxle googu nag nit ñaa ngi koy déeyante di ko wax ci suuf di ko déeyante ci waxtaan yi nga xamante ni bii moom lañuy amal ci grand place yi wala arbre à palabre yi ci naaj wu tàng wi mu ni jaaxle googu nag li ko waral mooy dafa am dég-dég boo xamante ni bii dañoo wax ni Damel Samba bi kët digganteem ak France yat waleen leen lëkkale woon mel ni la lëkkale woon Kajoor ak Jolof Samba Laobé damm na ko maanaam lu ko lëkkale woon ak gouvernement Ndar bi te loolu mooy dëlante ba ñu siñeente woon au mois d'août ca weeru août wa ci atum junne juróom-ñett téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett bañ ca tegee ñetti at ndax noo ngi ci junni ak juróom-ñett téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn loolee sàmbalaw bi xaatibante woon ak tubaab yi sorbière nee na dañoo dégg ci Tiwaawan ni loola génn na ca tàggoo na ak gouvernement am ndar mu ni am nanu tey nit ñu ñuul yoo xamante ni bi ñu egsee ay jëgg lañu woon waaye bi ñu ñëwee ci awoon xamal nañ ñu kët ñooñ sàmbalaw ba yi day sonnal nañu nu lool lool lool lool lu ko waral mooy moom dameel sàmbalaw be mu ngi dox jëm si Tiwaawoon te la ko tax a jóg du dara lu may taxaw ci ñu fay ko galak goo xamante ni bii immédiat lay doon ci taxawaay bi lay doon ci tàng-tàng bi muy ab patente extraordinaire maanaam am na kumbal moo xamante ni bii daal Damel Samba Laobé taxaw na ngir yaxantukat tubaab yi muy commerçant tubaab yi danañu ko fay nee nit ñu ñuul ñooñu itam ñoo ko ñoo wax ni loolu mu wax ni da koy fay tuba euh, euh, tubaab yi loolu de moo a bokkul ak lañu ñu woon ca dëlante ba ndax nee nañ la ñu juboo woon moom sàmbalaw bi ak tubaab yi mooy mayoon nañ nu nu dand raay bi juróomi téeméeri mètre waaye bi nga xamante ni bii wax nañu ni sàmbalaw bee ngi ñëw jëgg yu bari ay caravane yu bari yu sëfoon ay marchandises nekk Tiwaawan dal di nañuy sëfaat seeni kaake daldi di wàññeeku dañu doon dugg si ci jaab Tiwaawan bi ñëw di jaay see ka jënd si waaye nee na bi ñu déggee dëg-dëg boobu rek dañoo daldi di sëfaat seeni kaake ya ñu doon jaay si ci lu gaaw daldi génn Tiwaawan Sorbière nee na guddi googu day guddi la woon gu gudd ci noonu nelawunu ak jaaxle di nu bëgg rey nee na jaaxle yi lu tax nelawul mooy dañ suba kët mooy bis bi nu doon xaar ndax nee na ñu dameel sàmbalaw bee ngi ñëw nee na kenn ci sun nit ñu ñuul ñi euh, mooy li ñuy wax naan wolof danaan sama pël bi sama séeréer bi waaye tubaab bi fii li muy jëfandikoo mooy sunu nit ñu ñuul ñi sunu noir yi ndax nee na guddi googu li tax nelawunu bokk na ci sunu nit ñu ñuul ñi nga xamante ni dañ leen a jëloon ñuy nekk di jaay ci seen bitig yi ñoom day teg nañu leen bët ndax noo ngi laaj ni waaw dameel Samba bi bu nu songee sunu nit ñu ñuul ñii dinu jaayal waaw su boobaa ñoom dañuy ànd ak nun dal ci kaw dameel bi wala dañ ñuy abandonné ànd ak Damel Samba Laobé mu ne nag li taxoon nu gën a tiit ci nit ñi ñun ñooñu bay wax loolu sunu bitig yi dafa amoon bërigo yu bari yoo xam ni puutar nga xam ni kon tubaab tuwaab yi yàgg nañoo jaay ay ngànnaay ndax xare yi daan am ci Kajoor yépp ak Bawol gis nga nee na danoo am ay barigo yu fees dell bari de poudre que nous possédions en quantité dans nos magasins mu ni nun noo ngi xalaat di waaw waaw nun barigo yu yu bari yi nu yor ci sunu magasin bi su dameel ñëwee mbaa nit ñu ñuul ñii nu jël ñu di nu jaayal duñu taal bërigo yi ndax bu ci benn xësee tàkk rek yëpp tàkk nga gis ni kon ñoom wóoluwuñu nit ñu ñuul ñi ndax ñi ngi xalaat bu dammeel ñëwee nit ñu ñuul ñi leen di jaayal mbaa du ñu taal bërigo yi poudre poudre yi nga xamante ni ñoo nekk ci seen bitig yooyu seen magasin yi mu ni nag bi fajar jotee njaqare gën a law gën naaw tiim Tiwaawan ndax nee na ci suba cuuy gi rek ci la dameel Sàmba Lawbe dugg si Tiwaawan nee na ànd ak téeméeri ceddo ak juróom fukk waaye nee na nun traitants yi nun commerçant yi yaxantukat yi danoo dal di dajaloo nun ñëpp xamal ko ni ko danoo bëggoon a toog ak moom Damel ngir waxtaan ak moom nee na loolu mu nungul nu ko bi ñaari waxtu jotee ci tis ci tisbaar nee na ci la ñëw ci benn néeg bi nga xamante ni waxtaan wi nu war a seq ak Damel Samba Laobé ci néeg boobu lay ame nee bi nu duggee noo ngi fekk Damel Samba Laobé mu tëdd ci ak basang walla ak laltu ay nitam wër ko ak seeni fetal seeni ngànnaay te kenn ku ci nekk sa baaraam yaa ngi ko lonk ci sa tequkaayu fetal nee na te fetal yi di doon fetal yu gudd gudd gudd gudd nga xamante ni ñoom ceddo yi nun commerçant yi ñëw képp ku ca def lu dul noonu rek ñoom jekk nañu ngir teq bal ci sa kaw te nee na nun kët nun commerçant yi kenn ci nun yoru ci ngànnaay waaye noo ngi ci barab boo xamante ni ay ngànnaay yéen wër ay fetal yoo xamante ni yëpp ci nun lañ ko jëmale nee bi nu toogee ak dammeel benn yaxantukat benn commerçant bu nekk ci Rufisque di tëngee moom la ñu tal ni ko yaa yor sunu kàddu yaay sunu porte-parole nee kooku maanaam seen porte parole boobu kii ñu jox seen kàddu daldi ni ko dammel de danoo ñëw seet si la nun yaxantukat yi ñun commerçant yi ngir xam sëg jublu yow lan nga nar ndax nun kët dañu noo xamal ni nu dëlante bi nga siñante woon ak France te ca biir mu bokkoon ca sart ya yaxantukat maanaam commerçant bu mu neex nga jaay fu la neex ci Kajoor te kenn du la gundu xataal kenn du la indil benn jafe-jafe ñu wax nag ni nu dafa mel ni loola da nga caa génn yaa ngi bëgg a jël sunu barab yi te tegoo ko fu dul ci sa coobare yaa ngi bëgg a kar sunu jëgg yi di sunu caravane yi di leen laaj ab xaalis ab redevance impôt boo xamante ni nun commerçant yi nun fay nañ ko sunu gouvernement France bi ba noppi yow nga wàññeeku dammel bëggunu koo fayloo waat nee na ki yor sunu kàddu bi mu waxee loolu dammel sàmbaloo bi ni ko yéen tubaab yi sama kër ngeen ne nee na dammel dafa daal di jóg daldi di sóonoo can coñcoom jógul toog waaye dafa sóonu ci concoom concol ndi jooram nee na ninu man wékkuwuma ci kenn wékkuwuma ci France dama am sañsañ boo xamante ni am naa ko ci lii ma yilif di Kayoor sama royaume bii sañsañ boobu nag mooy dama leen a ay daan ci ni ma neexee dama leen a sañ a lempo ngeen ma koy fay ci ni ma neexee muy yéen muy borom ndar di gouverneur yéen ñii ak gouverneur ñii jaay seen doole ngir xeex muy ñu koy wax mercenaire ci tubaab yéen ay mercenaire dong ngeen yëmu leen ci doon ay mercenaire waaye ay jaam ngeen ay esclave ngeen nee jamono jooju nag en ce moment un de nos noirs li ma leen doon wax tubaab bi ba fi ñu toll ñoom ñoo moom nit ñu ñuul yi kenn ci sunu nit ñu ñuul yi daal indi keesu limonaat mu ni keesu limonade kooku ñun commerçant yi traitant yi noo ko jëndoon ngir bëgg koo indi ci waxtaan wi ngir dambeel sàmbalaw be bu yaramam tàngee mu naan ci limonaat ji ndaxu yaramam dal waaye nee na bi ñu indee boisson boobu muy keesu limonade gi nee na dammel sàmbalaw be dafa gàntal ndax nee na daf leen ni xanaa ngeen xamu leen ni man damaa woor tey sax man dama leen soxlaalul dara lii nag di lu jar a taxaw seetlu ci li Sorbière wax que ni dammeel biñ ko indilee naan saf suukar googu def leen ni xanaa yéen xamu leen ni dama woor loolu bu fekkente ni sax na dammeel sàmbalaw ba xuree jëmbooj bi muy faatu koor la yóbbaale waxuma ko tubaab bi moo ko nettali tey jàpp naa ni bu xëj na bu fekkonte ni gàmmeel wóorul ndax ba leen ne man dama woor daf leen soxlaaluma leen dara kon mel na ni bu wóorul woon danaan leen jël leen seen limonaat soxlawuma loolu nag man taxaw seetlu bi ma ci def mooy dameel Sàmba Lawbe moom ak nijaayam Lat Joor kenn ku ci nekk ci weer wii nu nekk di weeru muharram di tam xarit ci nga faatu Damel Samba Lawbe juróom-ñett jàpp juróom-ñeent di tashoha di bis bi nga xamante ni sallallahu alayhi amoon na yéene bu dellu see déwén mu woor ko te sunu borom dogal mu ñibbi aljana bis boobu ci la lii doon xew bokk yi ndax du dameel sàmbalaw bi daf doon woor tashooha ndax jamono yooyu du woon jamono weeru koor kon ñi nga xamante ni tashooha dañ koy woor muy juróom-ñeenti fan ci ku ko man ashora di fukki fan ci tam xarit bu ñu tam xaritee bi ci suba sa ci ku ko man ak it jiimul muharram di ñetti fan yi tam xarit lii daal bëggoon naa bokk yi xalaat ci ndax jàpp naa ni dameel sàmbalaw bi bu wóorul woon tubaab bi du ni biñ ko indilee limonaat ji daf ma ni daf nu ni man damaa woor te soxlaa lu ma leen dara nee na sunu porte parole bi njëkkoon a wax nag daal jëlaat kàddu ni ko yow de waxuma la nga tontu nu ci li ma la laajoon tontu woonu ci waaye ñàkk a tontu rek yemoo ci waaye da nga noo toroxal te noonu fi ñu toll noo ngi ci say loxo nu nekk ci say loxo ba noppi nga di nu li nu nekk ci loxo mooy noo la fekk si say ceddoo ngi nii yor fetal ay fetal wër nu kon noo ngi ci say loxo ñëw di waxtaan si ak yow nga dinu nu saaga porte-parole bi may wax mu ni ko lii de su fekkoonte ni kenn ci sa géwél yi ñoo ko def wala kenn ci sa ceddo yi naan sàngara ba man di dinu saaga kon loolu du ma jaaxal waaye yow ngay dameelu kajoor ak sa légét yi nga yor nga xam ne ci njàmbaar ci xeex nga ko jële nga am sañ-sañu ak mbon ba tax nga naan nu ay mercenaire ngeen ay jaam ngeen ndax xam nga ni noo ngi ata merci noo ngi sa kanam yor nuy ngànnaay ñi la wër yor nañu ay ngànnaay mu ni kon loolu nun moom la nu comprendre xam ne dag noo jekku moo tax nga dinu wax lii waaye li ma lay tontu mooy fii de bu fekkoonte ni kuy jaay dooleem ngir xeex muy mercenaire am na fi yow mii sàmbalaw bi yow la yow mii yaay ab mercenaire yow bi yaay yaay ko jërte wóolu ndax da ngay wax ba noppi génn ca wax ja tu ne tiens euh, pas à tes kon lii néeg yi nga nu bëgg a dëkkal yow dameel sàmbalaw bi yaa ci dëkk Sorbière nee na sunu porte-parole bi loolu la wax nee na bi mu waxee loolu nag nee na mel ni aw sawara dafa génn ci bët yi dammel Samba bi boo ko xoolee ndax mer nee na mu daal ni bërit moom dammel Samba bi daal di jóg taxaw ci njoolaayam ba nee na ci xoolin woo xamante ni xoolinu jëppi la mu ni nu yéen de yërëm naa leen waaye maanaam duma leen rey ndax yërëm naa leen waaye aywa ca biti génn leen loolu la leen dammel sàmmalaw bi wax ñoom yaxantukat yooyu ñëwoon ngir waxtaan ak moom bokk yi kon ñeenteelu pàcc bi di quatrième épisode bi fii lañu ko yemale ñoo ko déggandoo jaaykat yi tubaab yi ñëw nañu li ñu waxtaan waxtaan ak dameel dégg ngeen ko kon mel na ni gouverneur yëg na mbir bi yebal na ay soldaar ngir ñu ñëw Tiwaawoon bu ngeen bëggee xam fu mbir mi di mujj nag ndax Sorbière nettali nañu xeex ba na ko Omar njaay Espace ba nettalee woon dangeen ñuy topp rek ci juróomeelu pàcc bi di cinquième épisode sëñ Ale Fall sëñ Pape Ndaw jox naa leen nuyoo yi jëm ci kippaango yi mooy groupe yi cosaan yi ngir ngeen jottali ko bokk yi fa nekk yépp ma di leen sant di leen gërëm te di leen jox dox daje ci juróomeelu épisode bi waaye français lan na gooru Sénégal ñu dugal ñu dugal Sénégal ñi génn gàddaay far dem ba faatu ñu joxe seen gànnaay ndax ñu yaatu fam nañu saamu i cereefi soose yóbbu gabang boole koog baraama siise tala kapoor ba ñu lekke imbulaañse daf ko biir nag laaw ma faraañse ñoo gene lam de julbeere yi ñooro rey makki doom ji jàll fuuta tooro ñoo del roy nag almaami abdu buukar